ñaan suñu borom. yi nga xam ne jóge na fi tey may ko mu wax muy patrimoine national. ci taxawaayam ci liggéeyam. ak surtout qualité production. dëgg la xam ne parolier la woon. dëgg la doon yeete doon yaraate. ñu ngi ñaan yàlla mu xaare ko àjjana. ñu ngi ñaan mu ko. dëgg la yàlla mu yaatal bàmmeelam ci barzak. di ñaan it njabootam yàlla may leen xolu muñ. Waly ak ñëpp ñu mu bokkal. yal na yàlla may xolu muñ te sarax bi yàgg suñu loxo ñun ñëpp nag senegaal di wax ni demam dafa fekk yeneen dem ñu nekk ci tiis fii ci senegaal di ñaan yàlla mu teggil ñu natt yooyu yëpp moom mi dem nag miinante wuñu woon waaye ñeenti at ci gannaaw 2016 mm-hmm. defe naa mm-hmm. tase nañu ci bureau sama benn collègue mm-hmm. mu ñuy wax Abes Diop. Mhm. ñu présenté ma ko ñu waxtaan tuuti. mu tooñ ma ne ma yow yaay kii lëmbe réew mi. Mhm. ne ko déet papa ñun lëg lëmbewuñu dara dañuy dañu bëgg rek. Mhm. mbir mi gën a baax ngir mi la dox. mu ne ma dama lay tooñ rek. maa ngi lay te. apprécier naa li ngay def mmh. euh, bu dee nag li ngay woote dëgg la ci yow bu soobee yàlla di nga yegg fi nga bëgg a jëm mmh. waaye nanga xam ne dina métti mmh. dafa mel ni mu waxoon yëpp gis nañ ko daat may ñaanal ma continuer dem kon nit ko baax a fi jóge la ñu mën mooy ñaanal ko ñaanal ko yàlla xaare ko ci àdda yi gën a kawe looloo taxoon ñu teew fii ñu woon ñàkk a ñëw président parce que du dëj bu ndaw ci senegal loolu rek lañ ci bëggoon wax ñu ngi leen di gërëm leen sant